Euh, asalaamaaleykum mbokk yi ñuy suivre ci wasaare lamb ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal bu baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su nekk tey nag mbokk yi ñu ngi fii ci aéroport Blaise Diagne ñu international bu Blaise Diagne euh, ñëw nag pour góolu si benn mbër boo xam ne nii dafa wuti woon doole dafa demoon ca Maroc wuti woon doole ci combat boo xam ne mu ngi koy dëgmal ci digganteem ak Bébé Bismi Euh, suñu tuddee kii préparé bébé bismi xel yëpp day dem ci mbër mi fi bëre woon ak euh, caatu rëbës defoon jaloore bu rëy ba keroog ca Iba Mar gone googee nag di Siteu bu Ngor moom moo war a bëre ak euh, kii di bébé bismi combat yi nga xam ne Petit Production moom moo ko organisé moom nag ci préparation bi mu préféré woon dem bitim réew préparé fa combat am nga woon ca Casablanca ca Maroc da doon préparé combat am depuis mu dem ba léegi amuñu ay nouvelles ci moom xamuñu état de forme bi fan la toll euh, mu nekk kumpa goo xamante ne nii daal mbokki yëpp ànd nañ ci bokk kumpa googu euh, kon loolu bokk na ci li tax tey ñu ñëw góolu si ko fii euh, bëgg xaar bu atterrir rek ñu gis ko gis état de forme bi nga xam ne nii moom la indi xool ba xam ndax la mu wuti woon ca Maroc am na ko wala déet jàkkaarloog moom it laaj ko ci ay question yu ndaw rek ci digganteem ak adversaire am boobu nga xam ne moom lay préparer kon euh, ñu ngi nii di ko xaar euh, ñu ngi koy xaar ba xam ban côté moom lay génne ak euh, ban heure lay génn en tout cas dafa mel ni volam yegsi na parce que heure bi ñu joxe woon ne moom la vol bi di atterrir vol heure boobu noonu jot na dégg nañ bruit bu bare bare bare bare bare buy wane ne am nay avion yu wàcc léegi xëy na mooy ñoom mën nañ cee bokk bu bu bu retard amul ñoom mën nañu cee bokk en tout cas ci kanam tuuti rek incha allah mbër dana génn ñu jàkkaarloog moom won leen dëgtal leen li nga xam ne nii moom moom mooy xew fii ci aéroport international bu Blaise Diagne mais aussi euh, won leen li nga xam ne moom la jëlee woon ca maro kenn du leen ci jiitu kenn du leen ko njëkk a gis euh, nu Siteu mel rek incha allah tey balaa ngeen a tëdd di ngeen ko gis euh, ñu xaar ko rek di minute à l'autre xool ba xam ban côté moom lay génne moom mbëru eh, eh, ngor bi eh, Siteu bu ngor boroom jaloore yi borom ndam yi champion bi nga xam ne nii moom ak bébé bis mi ñëw war a jàkkaarloo ci combat bu neex combat bu nar a neex petit production organisé komba boobu kon gars yi ci kanam tuuti rek ñu ànd ak yéen xool fan la Siteu di génne. waaw ah, nee na ñëw na voilà mbër ngi noonu di ñëw mbër ngi noonu di ñëw mbër daa mel ni yegg si nga def

bilaay nice kay. ça waay taw feex. nga kaa diri la ba parking la. mbër maa ngi lay ziar. waaye taw fee. ci loo ne. naaj keeñ. yaa ngi taw fee bu baax keeñ. naka liggéey bi. waaye dalal keeñ war na sëñ baam. mbër foo demoon. waaw damaa demoon rek sama ruuxu rek mooy loolu. fan nga demoon fan. ak ah, dëkk bi la laa newoon de mooy lool de. di wax ne gannaaw si sant yàlla xam nga julli si yonente bi sant suñu ñaari waajur di wax ne jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. jaaraam maam Cheikh Rafa Jolof ak sëñ Mata yow di nuyu àdduna ñëpp di nuyu monde entier di nuyu Ngor Yoff Waxaam Almadi Taraawo namu naa leen di nuyu àdduna yëpp di nuyu dëkk bii ma jógee Morok ñëpp sama gars foofu yëpp maa di nuyu bu baax dem naa ñu dalal ma comme seen waay comme seen xarit. Mhm. di sant ñëpp di sant conseil yi ma doon entraîné ñëpp. loo uti woon. waaw daa ma manqué woon uti woon rek. ah li la manqué da nga da nga war a taseeg bébé ah, am lu mu la ëppalee nga dem wuti ko. non du pour bis mi sax pour sama yoonu làmb quoi dafa am lu ma manqué woon moom laa demoon joobi rek. Siteu yaa ngi ci ñaata combat. maa ngi cinq combat cinq victoire. waaw cinq combat yu yëpp nga préparé ko ci biir réew mi nga am bébé bis mi nga génn nga naan loolu du pour bébé bis mi. non du dara mbir mi staff la rek xam nga rek sama staff ñoo si liggéey rek ma leen sant bu baax ñoom ñëpp sama staff ñoo si liggéey xam ñu dalal ma mu baax xam nga ne ma dangay génn réew mi danga war a dafa am lu ma manqué woon du doole du leneen moom laa demoon uti gi rek. mais dañ laa natt sa digganteeg bébé bis bi ñu xam ne am na lu la manqué. no làmb la làmb moom boo ñimañu lu metti bàyyil làmb moom da ngay xare te xare moom si góor lañ ko xamee. waaw mbir foom góor la rek. yee kon du nekkul ne leneen. mais mbër déggoo ma de <laughs> dama ne. Bébé Bismi da ngaa gis ne yow boo jàkkaarloog moom day lu la manqué moo tax nga génn réew mi wala. non du Bismi xam nga rek dafa am lu topp sama ginaaw waaw yee te waruma ñëw du wane yaafus. Mhm. Bismi sax moom di loolu Bismi njool njool mu ñaabul la. lan mooy njool mu ñaabul moom xam na njool mu la man maay na nii na nder. mooy loolu. <laughs> mbër yow li muy wootee li muy wootee dama see juddoo alam lébu moom xam nga rek yaa ma gën a xam. ma man su loolu laa juddoo moom laa xam. mais dafa mel ni yëpp bi dégg nga ko nag ndax Bébé Bismi combat yi mujjee bëri nii bëri na minimum ba mi-temps dellu siwaat condition physique moom la yor. waaw ñun mooy loolu physique bu bëree moo tax mën nañu màgg sax. Ah. war na sëñ Touba. mais da nga jóge sa diggante ak caatu rëbës ñu bëri di wax volet mystique bi mystique bi mystique bi. non du mystique lamb moom mooy loolu gars ñooy dugg si forêt bi rek ñoom Abu xam ñoom Ndiora. Ah. gars yi ay di fay ay. yow nga dugg fan Serigne loolu ñooy dugg si forêt bi nga dugg fan. man damay toog sama rooxu rek waaw. tàllal samay loxo samay waajur rek hmm. ñaan waajur mooy jiitu mooy lépp hmm. yow boo ko amul doo dem fenn mooy loolu. mais bis mi noo koy def da koy jàpp wala da nga. waaw bis mi am na problème noo waaj ak mboqam de <laughs> man maay sama roxo di dem di waaj ak samay mboq fajar dama si teguwaat. bis mi nee bis mi nee na jaraloo ko génn réew mi de. waa loolu yëfu boppam la loolu yëfu ah. boppam la mais man man la Siteu te bu ma ñëwee naa dina xam ne ñaxu naa. mais lan moo tax nga préféré dem def un mois rek dellusiwaat. non dafa am lu ñu manqué woon lu tuuti rek moom lañ demoon uti ñëwaat. Hmm. waaw mais doo delluwaat si diggante bi. mën na nekk ba léegi kañ suñ demee suñuy kosu bu ñu xoolaatee rek lu mu laaj rek ak suñu staff rek ñu def ko parce que ñun instant yi staff la ñuy déglu rek. mais foofu yokk doole rek ngay def mais doo contact. non loolu duñ lu ñuy wax si média. no <laughs> faaw dem wax ko nag demuñu woon pour yokk doole sax. Ah. mais dañoo demoon am luñ uti gu woon rek. ay doole la rek du mystique moom. non du mystique moom loolu moom bu ñu si yeggee arbitre la moom dina xam. Eh. yee naata di ndir moom ndir sama carrière lu làmb instant yi man moom laay wax. mais du hmm. bis mi. yee moom na waaj ay mboqam la fin yàggatul non non. non non yàggatul mu ñëw wane yaafus rek. balaa ñuy jàppante nañ xeex foofu góor la da ngay dóor ñu lay door non moom kay nee na pare na ñi parewut ñoo génn réew mi mais moom pare na. waa kii pare di du darti di laaj surtout si lan la nekk boo paree man échange mooy loolu de gars yi man la ñuy topp xam nga man ka laay topp arbitre bi rek. <laughs> kat mooy laaj ci loolu waaw ah, man gars yi man rek ah. la ñuy topp mais man arbitre bi rek laay topp. Bébé Bismi day laaj ci lan nga nekk. bis bi loolu yëfi boppam la mooy loolu. da ngaa jot ay vocalam wala nu mu demee noonu. non bis bi mooy loolu. <laughs> bis bi mooy loolu njool mu ñaabul la. Ah. man maa ngi nii na <laughs> war na sëñ Bamba. baax na suba euh, suba daa mel ni nga dugg stade wane sa bopp. suba waaw. Eh, ñu ñaanal xam nga rek xeeru ngor ndam bi régal ndam mooy loolu. suñuy mm. garant lañ xam nga rek. làmb dafa metti boo mm. neexee si gox rek xam nga rek. ñuy wooy ñoom ñu jàppale leen. yaa wax ne man na ma làmb bàyyi na ma làmb geesu. Mm. yaa damaa dëkk si dëkk boo xamante ne ñëpp ma mag maa si gën a nekk xale. Eh, ñëpp amul beneen booy bi ñu ñëwaat sama ginnaaw man seul. war na sëñ Bamba lamba yaakaar ma yow may bëre xam nga di jënd ay bologu dix billet bolo dix bolo yi billet hmm. yomb su mbër mu ndaw hmm. war na sëñ Bamba yow da ngay gis mbër mu jënd ñetti bolo di ko ndamoo dañuy hmm. dañuy jënd dix bolo yi billet te du ñu mat suñuy supporté dañuy dox ba esaat yow kon ngalawaay ne arène nationale la ñu ngi woo ñëpp di woo ñi dëkk foofu Pikine ñëpp yow di ko teg si loxoy sëñ Xalil Mbacke ba Ibrahima ñu koy si loxoom di woo mafia Pikine bi yëpp comprendre nga. Mm-hmm. yow di wax ne bis moom mooy loolu. li nga wuti woon daal jàpp nga ne am nga ko. bu doon léegi pare nañ war na sëñ baam bu doon nee. Hmm. bilaay bu ñu leen géewaloon suba suba ngeen defante. léegi nii lekk suba dafa sore yow <laughs> war na sëñ baam suba dafa sore. promoteur yi booy la xam nga rek. non Siteu Siteu yow yow lan nga gis ci bis mi ba ba ba. ba ñu lan nga nee naa la lamb foom góor da ngay dóor ñu lay dóor. waaw ah. mi la rek la. Hmm. comprendre nga. aaru mbedd mi loolu moo fa am aaru mbedd mi da ngay dóor ñu lay dóor am mhm. nga doon nante tey nga jeexoo suba ñu jeexoo la am déet hmm. kon foom góor la da ngay dóor ñuy dóor mais mën nga ñoo ñamal ci liy xew ci sa diggante ak bébé bis mi bis mi dañuy dañuy xeex loolu mënul ñàkk yow ah di ngeen xeex war na ndaxaanaa ah, baax la dañuy xeexle laay dañuy jure ba dugg fi di ngeen bëre ba mi loolu su moom lay dépendre rek baa mooy diriger bu demul naani <laughs> mooy diriger non man du ma diriger ar bi na sif la rek loolu rek laay xaar yow di sant ñëpp. waaw santal gërëmal àdduna xam nga. yow di sant samay yaay xar yi. Mhm. li bëgg nga génne loolu ko war na sëñ Touba. sama xaalis génnul foofu jënduma dara. Mhm. lépp moo ma koy defal ah, waaw moom moo nekk Maroc. waaw lépp moo ma koy defal sama yaay xari Diop. lépp moo ma koy defal chaque jour damay wax naag yaa ngi ci jàmm. Mhm. comprendre nga yow di sant ñëpp. yow di sant Koulibaly maa ngi koy sant bu baax sama coach Koulibaly Malien sama coach maa ngi koy sant bu baax a baax a baax teg na may coono yu metti di sant El fa Fall Las di sant ay buur buur géwal maa ngi koy sant bu baax grand artiste Morok buur maa lay sant bu baax a baax gis naa sa taxawaay si mbir mi xam nga di sant gars yi fa nekk ñëpp war na sëñ Bamba. mbër loo doon lekk loo doon lekk. di sant Morok loo fa doon lekk. Morok loo fa doon lekk. lu ma doon lekk. waaw ah. Morok kon li may lekk fi rek laay lekk foofu. looy lekk fii. war li may lekk fi yow di gërëm àdduna saa naan <laughs> amul marok <laughs> gërëm àdduna yëpp di sant àdduna yëpp di woo si lamba ji lamba ji maa ngi woo àdduna uh-huh. di wax ne dama àdduna ñaanal yow di sant xam nga di sant di woo aji bëgguma mbayloo maa di woo si bis bi comprendre di woo monsieur le maire di woo ancien maire di woo ñëpp di woo ngor ñëpp waaw lamba ji lambut sama directeur sama patron daa moom moom lamba ji yaa di ko wax ne làmb ji mu ngi si kawam làmb ji mu ngi si loxoom lu mu si deful rek si moom la bàyyi nañ ko làmb ji yëpp hmm. làmb ji làmbaam la te man bu may ñëw du ma làmbantu de damay làmb hmm, da daj te làmb laay indi. da daj. yow man dinaa jugee ngor naan damay daj wala du ma daj war na sëñ Bamba. mbër jaajëf. naas keñ. cant ngërëm ñeel na la. waaw waa di bëgg di sant waa aéroport ñëpp war na sëñ Bamba. Eh. di sant di sant di sant waa aéroport aéroport Sénégal di wax ne na leen Macky Sall ak geesu comprendre nga waa aéroport bi na leen Macky geesu xam nga taxaw leen jàppale leen xam nga yombul ñëpp ñoo ngi nelaw ñoom ñu ngi ñëw di di gane la gani comprendre nga te ñëpp ñu ngi dallu na leen Macky Sall xam nga tàllal loxo war na sëñ Bamba naxas ke waaw waaw dëgër. tous dërëm waaw ah si